ci moo ciy feeñ ndax boo seetloo ñi nga xam ne yàlla mane na leen gan buñ dee ngénte ci misaal la ñuy joxe xaaju wala boo xaajoon ngénteel kañ ne dafa néew doole ñeenti yoon kii yàlla mën a gën benn ba bu ko joxee day doy sëkk ndax lan dañoo ragal aw xas aw ŋàññi dañoo bëgg itam aw tagg ñaar yooyu nag te lislaam loolu bokk na ci li mu doon combattre ñun nag jàngoro jooju ba léegi dafa génnegut ci nun dool dina tax nit ki def ba def lu mu mënut ndax di nga gis surtout suñu mbokki jigéen ñi ñooñu ci lay gën a feeñe waaye lu ñu amit ñoo góor ñi ñoo ko ànd ndax góor ñi ñoo koy joxe waaye da ngay gis ku joxe lu bari ba fam la mu doon joxe mu mu jóg ñu ne moom dafa joxe ba yël maanaam mu jàpp ne loolu aw tagg jóg yëpp nga xam ne guddi gi nga xam ne ci la defe loolu wala ci fajar bi lu ñu jënd almet sax ngir tàngal ndékki wala ñaari mburu yu ñu jox gone yi sax du fa du fa fanaan nga xam ne kenn ca ñoo la doon séddale ñooy ñëw ñëwit ne ko ah man de maa ngi fekk dara ne ne lan ne ne mën naa la ko abal su ko defee bor nekk su ko defee waaye loolu yi koy indi yëpp mooy jëflante bu riba bi nga xam ne ñu ngi koy jëflanteeg moom te loolu yàlla waxoon ci lu am solo te mooy képp kuy jëflante jëflante bu riba na nga jàpp ne da nga dëkk yàlla ab xare loolu nag buñ ko waxee buñ ko woyofalee it woyofa buñ ko naxasaalee it faaw ñu di ko gis ci sunu sunuy suba ak sunu ay ngoon kon nag yàq gi moom nit ñi bëgg buñ bëgg ku leen di wax ne yow kat ndekete ñàkkoo loolu da leen di jaral ñu def ko dugg luñ mënut te wolof day wax ne ku dugg loo mënut mereku la deful dara.
waaw am solo suñu amul tey xew yi gis nañu wax na baat bu am solo nag muy riba te nit ñi woyafal nañ ko tey di nga gis koo xamante ni tey bu nit amoon sax ngénte bu la ko yëgalee da nga cee waroon a bég sargal ko waaye ak jaaxle sax nga ci am te boo sañoon sax su dul mën nañ koo foofu moo lay gën a loolu da ngay gis moom loo xam ne maanaam da ngay gis ci jigéen ñi koo xam ne day joxe doomam mu toll ab diggante ñu di ko ñaanal yàlla na mucc ak jàmm waaye da ngay gis buñ nee buñ nee buñ buñ yégee sax ne toll na ab diggante da ngay dégg ñu naan ah mbaa amagul doom mbaa wasinagul xoolal loolu lu ko gën a doy waar.
di xool ay weeram di xam.
waaw di xam fu mu toll naan ah mbaa soreegul waaw di di nga xam ne la ñuy yéene mooy yàlla bu mu amagum doom léegi. su ko xasee def nag bu ñu la woowee ne la diw de am na gone bu njëkk fu ñu ko mësaan wax da ngay da ngay bég bég la daan doon waaye bu fekkee téléphone bi gaaw naa coupé nga dégg mu ne wax nga ay de wala ah musiba am na nga xam ne ñam toogal moom loolu la leen di wax ci loo xam ne mbégte la war a doon loo xam ne wër sa doon benn charge boo xam ne buy ñëw ci kaw nit ñi la te bu njëkk nañ daan defee ay xew mooy ab bagaan lañ ko daan tudde bu njëkk dañ daan teggi ku xewle ab coono ba nga xam ne moom sax daawut togg wala buy togg xar ma muy rey wala gàtt ba muy rey moom lay jël def ci ay ñeex ña nga xam ne ñooy ñëw di ko ca jàppale si ku ne da ngay togg bagaanu cere indil ko soo ñëwee ñu xaaj ko cere la ko gan ñi yow mi nga xam ne dañ fee dëkk ñu tànk ca lañ defoon defal la ci la ca des nga yóbbu sa kër nga xam ne waa dëkk bi kenn du ci xéewloo ci xéewloo gan ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ñoom nga leen di indil luñ xéewloo ba noppi la ñu waroon a xéewloo ñu defaral ko seen bopp loolu moo doonoon xikma bi amoon ci bagaan ak ndaw sare bi di amoon léegi nag fi ñu toll nii si amoon te day mel ni loolu soppeeku na nag nit ñi dugal nañ ci yeneen yoo xamante ni moom mujj na mu indi ay ay jafe-jafe su boobaa nag li mu wax léegi moo ci am alxuraan moom lu mu wax rek dina am fa taqalu malooman mas da ngay teg rek merek lu def dara mooy ji nga waxoon léegi dem borto sa diggante nit mujj la nga koy wax lépp ñu la ci yeddaale fekk la ci nga bëgg fekk dara te soo ko mënaati fekk yàlla te sa bopp kon boog loolu moom ak su ma yëgoon te fekk na loolu yaa ko sa bopp alxuraan wax na la ko boo yàqee rek rëcc fekk la ci ak yeddaane yoo xam ne da ngay xam ne lii yaa ko teg sa bopp kon mu waxaat benn am solo boo xam lu am solo tam mooy jëflante riba gi nga xam ne itam day bari ci biir ci biir jigéen ñi seen jëflante loolu te war nañ ci di war nañ koy jàngat ba xam nga ginnaaw islam ñaari xaaj yi lii solo si ak sa borom la muy ibadaat yi yaakaar naa ne muamalaat yi ab julit warul def benn benn wax na ko booy jàng téere bi ngay njëkk a jàng sax mooy laxdar yu te sëriñ bi def ko nii mul jaw xaru nafis la nga la nga cay njëkk a jàng mooy bala ngaa dugg ki dara defal ñu borom xam-xam mu leeral la lii nan la ko lislaam tërale nan la war a doxee nga xam ko mu doxee noonu te yooyu waroon nañ am ci mbir yi surtout loolu rek da ngay jóg dugg ci loo xam ne boo yeexee la la cay fekk doo la nga cay tàmm doo ko ci am ndax nit ñi moom tagg bi nga wax bi nga xam ne moom nga moom nga moom nga moom ngay sàkku ci ñoom wala ŋàññi wi ngay daw ci ñoom li nga bëgg tey rek bu ñu ko amee ceew mën nañ ko def mais suba bu ñu ko amul daal lay daal lay mere suñ bay jaatawa suñ bay jaxata nee na kuy bëgg ci yow naa la yaa gën ñëpp saa su meree ci yow la ñëpp la gën wax say ay wane ko kon boo ko loolu ko jàll maanaam moom tënk ne ne ne dañuy dañuy lekk say yëf di wax say ayib ba tax na loolee di defal moom ne yàlla suñu borom tax ndax bu dul loolu yow moom da ngay da ngay da ngay perte dëgg la ndax yëpp tax ci ci jawharu nafis boobu ba tey ci bunt bu njëkk ba defe naa ne da nga cay fekk ne jëpp alal ju mu mën di doon joj nit nga lekk ko waaye ba nga cay jot doonte la sax da la koo jox waaye ba mu la koy jox ñàkk pexe tax wala kersa wala ñàkk fayda wala ngegte ba tax mu jox la ko loola moom nga ñëw fekkoon ko mu mu mu denc ko nga sàcc ko wala nga kar ko dóor ko nangu ko yéene ñaar yooyu ñooy bokk ak suute
macha allah am solo nag yaakaar naa ne buntu la boo xam ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax muy aaya bi gis ne kon lislaam bëgg na ak yemale bañ na itam ak jéggi daw te loolu saa yoo ko xoolee kon dina tàbbi ci lu matul def bu dee boo boo boo sàgganu tuuti nag mu tàbbi ci leneen loo xam ne na ko suñu daal waxoon nee na foo ko fekk moo ko yàq ñooy ànd nee na mooy fo ndax tey jii soo demoon gis yenn xew yi am ak nit ñuy génnee nañ koy defee di nga gis nit ñi mujj na sax am xool lañ ci jublu te loolu yëpp kon ay musiba la yoo xam ne lislaam bëgg na daal ginnaaw dërëm bu ne moom dinañ laaj fa nga ko dugal waaye dinañ laaj fa nga ko fa nga ko fa nga ko jëleewul kon loolu mel ne bokk na ci digg yi gën a yàggal isaab bi moo tax kon ñu war a koo xool bu baax a baax di ko di ko di ko bàyyi xel sëñ Cheikh naa ñu ñëw ci xadis bi tey ban ban ban lañ ci yóbbu.
waaw xadis bi ñu ngi ñëw ci xadis boo xam ne xadis buy tere tooñ la ak buy tax nit a dox ci aajo yi mbokkam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne al muslimu axul muslim laa yazlimuhu wa man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja allahu anhu kurbatan min kurbaati yawm alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawm alqiyama yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jullit bu nekk jullit mooy mbokkam te loolu Sëriñ Tuubaa fésal ko bu baax a baax mi ngi wax ne wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah koo gis gi mu ñëm mu di ca tudd baatu shahada kooku bu ko jàppeeti mukk ab noonu wa ahbibil mumina lil imaani wa abghidil kaafira lil kufraani nit ki bu xasee ne ab jullit la rek gëm na yow sopp ko doonte la daf lay tooñ wala sax am na ak réeroo wala ak juyoo am na seen diggante waaye ka nga xam ne ab saay-saay la di ab yéefarit na nga ko bañ doonte la daf laa jox àdduna ak li ci biiram ndéer gi kéefaram googee nga xam ne kon jullit jullit mooy mbokkam mu waxit ne jullit kon ginnaaw jullitee mbokkam bu muy tooñ mbokkam lépp lu mu gis ne lii Serigne Touba leeralal na ko ci nax ju xadaa ilxaaj ne lépp loo xam ne bu la ko defoon du la neex loolee bul ko def mukk nit wala mépp mbubb moo yëkkati bëgg koo solal nit natt ko ci sa bopp balaa nga koy solal ka nga xalaata solaloo mu wax ne nit ki su fekkee ne dafa bëgg aajoom di faju fu mu toll nay dox ci aajo yi ay mbokkam Serigne Cheikh Lo yàlla nañu ko yàlla fayal daan wax jaamu yàlla bu nekk nit xëy na mën na koo def di ca am sikki sàkk waaye fekk aajo yi nit moom saa yoo ko nit defee rek nangu nañ ko te yàlla dina ko fajal aajo ne nag dem na ba ci fekk xale buy jooy xamoo lu muy jooy nga jël ndox jox sax nee na loola bokk na ci li nga xam ne dana tax nit ki ay aajoom di fa jóg képp ku nit nekk ci ay jafe-jafe nga ñëw boo amul dara it nga waxal ko ba xelam dal wala nga wax ko yoon muy jaar ba mën caa génn wala mi ngi ci daal lëj na dugg na ci juta nga lijjanti ba génne ko waaye dañoo nekk ci jamono joo xam ne nag nit ki bu nekkee ci jaaxle ba lii ñu ñëw dindil ko jaaxle ga dañuy ñëw di ko yéemal jaaxle ga ak di seet naka lay def ba sëtëf ci biir jàkk loolu ba su ko defee suñu ñaawtee ba ñuy def ñu mën koo làq ngir xëy na ki nga xam ne moom moo feeñ te képp koo xam ne da nga dindi sa mbokkum jullit aw tiis yàlla dina la teg aw tiis bu yombal xel képp koo xam ne it dafa suturaal mbokkum jullitam bu suñu borom dina ko suturaal fii ci àdduna waaye dina ko suturaal itam bu ëllëgee fa àllaaxira kon lépp lu nit di def ci jullit wala ci nit ñi rek na ko séentu ci boppam la sëriñ Fall daan wax jaamu yàlla ci jaami yàlla te lépp loo xam ne it bëggoo ñu fay la ko loola bul ko leble mukk sëriñ Cheikh dafa daan faral di wax ne nit du ji mukk garabu kaani di ca séentu meññatum suukar waaye nit it du ji mukk meññatum suukar di ca séentu meññatum kaani daan na lu la nit ñi wax wax di la xas ci sa garabu suukar gii naan la dana saf kaani mënu ñoo wax mukk ba jox la kaani wax li nga jublu jublu yëpp nga ji kaani mënu ñoo wax wax ba teggale la sa sa sa meññatum kaani kon kon nag suturaal mbokkam nit daf ko war a def fekk nit ci xat-xat nga dindil ko ko nit daf koy war a def fekk nit jaaxle nga fexe ba dindil ko jaaxle googa nit daf koy war a def ndax bokk na ci yi jëf yi suñu borom gën a gërëm loola bokk na ci mooy fekk ko mu xiif nga jox ko mu lekk mu am bor nga fayal ko ko mu jaaxle nga dindil ko jaaxle googa yooyu bokk na ci jëf yi nga xam ne suñu borom moom la gën a sopp moom la gën a naw ci ab jàmm lu am solo suñu amul te suñu seexu naa nee na ay jikko yu tedd yu rafet yuy wane ne lislaam wax dëgg yàlla yemul ak beneen diin te nag lii mooy loo xam ne boo ko ci dindee daanaka la fi newoon rek laata yonent bi saa sallam di ñëw moo fi moo fi moo moo moo fi des.
jërëjëf sëñ Cheikh naa jërëjëf sëñ Lamin sëñ Cheikh naa li mu indi mooy rek ne kon jullit ñi ni ko olof di war a waxee di ko ni ko olof di faral di waxee du ñu ñaari bopp waaye benn bopp lañ. wax ci mu indi ci benn masal bu am solo li ñu tuddee al insaafu bi nafsi mbub moo nar a xotti bëgg koo solal sab nawle njëkk koo natt ba xam nu mel ci yow su fekkee dafa nga ne